ah maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen euh, xamal ni rek euh, sama xol dafa sedd parce que situation bi ñu toll. Mhm. ngeen jox parole gi nga xamante ne nii fekke woon nañ ko te xam nañu li nga xamante ne mën nañ ko wax mu jëriñ askan wi. Mhm. mu nekk loo xamante ne nii maa ngi seen disposition pour tontu leen. il y a pas de problème. voilà jërëjëf maître Cheikh Tidiane euh, kon yow nga bokkoon ci parti démocratique sénégalais jiite woon cadre PDS yi nekkoon itam député ci assemblée nationale mu yenn ci fonction yoo jotoon euh, occupé. ñu jëm nag ci ay élections locales yoo xam ni élection la yu narta yomb opposition bi lu ko jiitu euh, kon daan nañu coow ci mbiram fichier électoral yow nga am loo xam ne xëy na bëgg nga ko caa jukki attirer ci attention jafe-jafe fichier électoral d'abord ci Sénégal. kañ lañu ko am. waaw xam nga bu ñuy fàttaliku élection yi weesu woon. Mm. Ablaye met euh, président Ablaye Wade neen du bokk ci élection yi parce que fichier électoral bi tant que changé wuñ ko. Mm. Euh, élection yu leer du fi mën loolu moo taxoon mu bañ dem ci élection yi. Mm-hmm. léegi nag ci biir loolu euh, comme bi nga xam ne def nañ élection yi contestable ñii ne fraude la lu nekk ñu wax ko. léegi nag euh, ñu créer woon benn commission entente bi entre le pouvoir ak euh, opposition bi ñu créer benn commission waxtaan pour ñu jéem a xool point yi nga xamante ni daal moo doon euh, problème de divergence bi ñu xool naka lañ koy réglé. ci la ñu waxee ni Union africaine ak CEDEAO ak ñu tuddati commission européenne bi. Mhm. ñu ñëw saytu. li nga xamante ni mooy mooy mooy nu mu tudd fichier électoral bi waaye dañu am yaakaar ni biñ ko séentoo ba pare ñoom daal li état bi wax tëral ko rek la ñu ci la ñu hmm. loolu mu nekk loo xamante ne nii nag kenn mu mënu ci sukkandiku pour mën a def ay élections yu leer nañ loolu nag li ci li ci jiitu mooy opposition bi waxoon nañu nañ def benn bulletin unique bulletin unique boobu buñ ko defoon tey jii dina nekk loo xamante ne nii dina wàññi rëq-rëq yu bëree bëri bëri. Hmm. léegi en plus de cela également ñu xam ni organisation élection yi dañ ne woon dafa amoon organe boo xamante ni dafa war a indépendante mu gérer élection yi. Hmm. mais organe boobu effectivement euh, jotuñu ko def état bi bañ sur toute la ligne. loolu na nekk na ay rëq-rëq yoo xamante ni tant que changé wuñ ko du ñu mën a jëm ci ay élection yu leer. yoo xamante ne nii ñun ñëpp nañ ci gis seen bopp. Hmm. bala ñuy ñëw ci waaw li ngay ragal tey dëgg-dëgg ndax hmm. ci jamono yu président waat bi nga nekkee ak moom euh, nga bokkoon PS PDS plutôt hmm. amoon ngeen jafe-jafe yu mel nii ci wàllum fichier ak nguur gi fi woon waaw amoon nañ ko bu baax a baax mais xam nga ñu mu nekk loo xamante ne nii euh, xeex bu metti la indi woon ci entre Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf finalement Abdou Diouf. Euh, génne code électoral bu bees ba finalement ñu régler presque problème yëpp am mm. ñu régler ko waaye bi nga xamante ni nii ñun ñi nga xamante ni ñoo doon xeex loolu te Macky Sall bokkoon ci loolu mm. léegi yàlla bi mu ko joxee réew bi dafa ñëw soppali ki waat changement bi yëpp mu indi loo xamante ni nii kenn kenn kenn mu xamul lan kon kon lim fi fekkoon muy ay acquis tey amatuñ ko amatuñ ko loolu ah, amatuñ ko te fegam amatuñ ko nag dafa nekk euh, situation boo xamante ni dafa doy waar. mais est-ce que mun nga ñu précisément lan la ci soppi ba tey xëy na lañ amoon code 92 foog naa moom ngay wax code Kéba Mbaye ba. tey tey ñu ñàkk ko ci wàllum fichier. waaw boobu temps euh, euh, amoon na sax temps yoo xamante ne nii kenn daawul boo daan wootee sax daawul am isoloir ni rien du tout. Mhm. ah mu am ay situation yoo xamante ni de fraude totale léegi bi ko Ablaye Wade ak PDS si Abdou Diouf mujj dem ba ñu trouver benn code électoral boo xamante ni balaa ngay voter da ngay identifier wu inscrire légalement et tout ce qui s'ensuit mm. tout lépp matul woon waaye loolu permettre nañu ñu dem ci élection ba ni ko Ablaye Wade gagné mais léegi nag euh, problème bi ci nekk mooy dañu toll ci situation boo xamante ne nii euh, lii nga xamante ne nii moo mën leeral élection bi déjà fichier électoral bi fichier électoral bi sëgëm jëloon nañu sax ay européens ak yooyu ñu ñëw ak africain yi ñu yow ñoom it seetee affaire yi dañu ne yëf daal aw na ci yoon mais loolu xalaat nañu ni awul ci yoon parce que tey jii par exemple boo duggee ci benn lieu de vote ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy gérer yëf yi par exemple tey jii ñëpp xam nañu ministre bu yor intérieur ah, di gérer ko pour partisan la boo xamante ni kenn def ko confiance mu nekk koo xamante ni nii ah situation bi nga xamante ni nii Euh, dugg na ci ak euh, ni mu comporté woo ak euh, Karim Wade ba tëj ko et nekk na ko xamante ni il n'est pas fiable du tout. Hmm. bon kooku nag bu fekke moo yor léegi élection yi ci boppam kooku day tey xel te nag man li ragal. Hmm. mooy bu fekkee ni dem nañ ci élection yi ba finalement ñu constaté ni élection yi awul yoon kon li muy indi pëcc xoo bu méttee xeex bu méttee métti te loolu du intérêt Sénégal loolu moo tax nag ma xalaat ni euh, xëy na opposition bi mënul woon def leen parce que datu élection yi sax biñ koy def opposition bi d'accordul woon waaye ñoom ñu forcé ba def ko léegi aussi nee nañ ko bulletin unique ñu def ko mu way léegi aussi ñu ne dañuy wut benn organe boo xamante ni nii indépendant boo xamante ni day ñëw euh, euh, di di gérer fichier électoral bi ak processus électoral bi mu bañ ci biir loolu nag dina indi loo xamante ne nii élection yi ñu jëm c'est vrai ñëpp ngi ci di ci bokk et tout cela mais fiabilité mooy problème te lii lii indi situation bi mooy bu ñu demee bu pro ba wax résultat yi dina am ñu dul nangu tey dul nangu ëllëg par exemple boo demee ci benn lieu de vote hmm. ñu ne bureau numéro huit euh, numéro huit fi la Cheikh Tidiane Touré di wote léegi nga ñëw foofu ñu xool bureau numéro huit ñu ne ko ah nekkatoo fii mais duñ la wax fan nga ne hmm. ci ban ban bureau de vote ngay wote à tel point que yow buñ la seetee gisuñu la day indi pëccxoo boo xamante ni kenn du ci d'accord ma ne kon bu fekkee loolu la nañu def benn bu ci nekk lieu de vote yi ku ci nekk boo ñëwee ñu def benn genre informatique boo xamante ne nii lieu de vote bu ci nekk euh, électeurs yi fay war a vote yëpp ñu xam seen lieu de vote et tout ce qui s'ensuit même dañ ko waroon def ci nepp yi comme ça ku ci nekk xam nga boo demee fii ngay vote wala dëkk yooyu yëpp ñu ko def mu indi confusion totale confusion boobu nag muy indi mooy tax man su ma demee war a voté te permettre ma ñu voté automatiquement duma ko nangu. Mm-hmm. sama morom te loolu te loolu da jàpp ni ñoom ñu nekk ci nguur gi tey ñoo ko def pour jaxase carte gi. Mm. ah ñoom ñoo yor fichier électoral bi ñoo yor lépp ñooy inscrire nit ñi xoolal ñi nga xamante ne nii stock mort bi ñu doon wax. stock mort boobu nga xamante y avait plus de deux millions yoo xamante ne nii euh, litige la. bi nga opposition bi xeexee dañu xëy suba daal di ne quatre cent mille rek lañ ci jot a loolu nekk na un million six cent yoo xamante ne nii euh, kenn kenn kenn jotu ko réglé mais ñooñu boo demee ñoom élection ñu yor fichier bi euh, yor organisation bi yor lépp kon kan moo leen mën a gagné ci biir loolu moo tax nag ñu ne élection yi c'est les élections yoo xam ne danger bi dafa rëy parce que dëkk yu bari yu am problème ci à partir des élections yoo xamante ni leerul te ki nga xamante ni moo ko sumb di ko defal li mu teg leerul te opposition bi également euh, li ma yaakaar ni nangu nañ ko dañu nekk en tout cas ñoom du ñu boycotté dañuy dem ba ci cëppaandaw ba bu ñu demee ba ci cëppaandaw ba ñu joxee résultat yi peuple bi dina jël responsabilité voilà defe naa stratégie bi nga xamante ne nii moom la moom la moom la comment dire opposition bi jël société civile bi et tout ce qui s'ensuit mm-hmm. donc man euh, euh, dafa am loo xamante ne nii xalaat naa ko aussi ci élection yi parce que aujourd'hui euh, opposition bi mënul exemple un peu partout mais dama xalaat ni sëgëm jubboowuñu ba defar benn liste boo xam ne ñoom ñëpp koy bokk mm. mais nañu bokk li nga xamante ni mooy surveillance des élections ku ci nekk bureau de vote ba nga nekk lieu de vote ba nga nekk nga nekkal fa ñëpp comme ça mu nekk loo xamante ni dina leer naaj. mais bu dee déggoowuñu loolu nan lay amee. non non cest à du ñu déggoo ci defar liste yi. Hmm. du ñu déggoo ci def mais ci surveillance su élection yi. Ah, di xoolal. waaw ñu xoolal seen bopp ku fa nekkul aussi kaf kenn ka fa nekk xoolal ñëpp mu nekk loo xamante ni dina mën a servir tout le monde. Hmm. mais man am naa ci expérience bi ñu am ci élection élection yi dama ci am vraiment loo xamante ni tiitange la parce que ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñuy ñoom euh, comment dirais-je pouvoir bi et tout ak ministre de l'intérieur bi ko war a kii yëpp daf ko rejeter comme quoi que ni euh, mënoon na permettre transparence bi quoi léegi nag ñu loolu bu amee ñu dem ci ay élections bëgg a wax ni kii moo gagné kële moo gagné mu am contestation dañuy dugal Sénégal ci situation instable euh, boo xamante ne nii kenn du ko mën a kenn du ko mën a téye te dëkk yu bari de muy yi muy Guinée ak yu bari loolu moo indi problème bi ñu nekk. loolu tax man loolu loolu moo tax man en tant que expert euh, dama am tiitaange ci biir léegi nag am na ñu bari ñu ne ma domaine boobu weesu nañ ko ma nekk ko noonu domaine boobu mënuñu ko weesu parce que tant que yëf leerul yow nga ñëw di wote ñu ne la il n'en est pas question doo fi wote ñu jël stock mort bi nga xamante ni un million de personnes injecté ko ci biir ba pare les jeunes les primo-votants kenn dugalu leen ci bare foofu naka la ñuy waxee élection. mais opposition bi fi mu ne nii ñoom waxu fichier dafa mel ni dépassé nañ ko effectivement ndax waxatuñ ci. non non du question waxatuñ ci sax parce que dañ ci mënatul dara. parce que ñooy forcé ba ñu def élection euh, ba ñu dugg ci élection yi léegi nag ñoom dañu ne duñ fi nekk di topp ci fichier bi et tout kooku peuple bi dina ko régler boppam. Hmm. parce que ku dem bëgg voter ñu ne la doo ñu xëy suba génne ay résultats yoo xamante ni ñu ne Dakar PS gagné eh, non c'était euh, euh, pouvoir bi gagné ne ko tel tel tel mm. mais ku mel ni les autres yi nga xamante ni c'est des candidats ak les les partis les coalitions duñ ko nangu léegi nag mu am confrontation boo xamante ne nii fan lañ koy jooyee heureusement euh, comment amoon na fi benn problème bu fi amoon kooku ñu ñuy féliciter di gërëm si Serigne euh, euh, le xalif général des Mourides. Mm. bu dul woon teg moom kon dëkk bi tas na bu yàgg. parce que moom moo waxtaan ak opposition bi ne leen may leen ma dinaa ko rek looloo tax opposition bi teggi teggi loxoom te du opposition bi sax peuple bi ñoo teggi seen tànk. Mm. ba affaire bi leen mais léegi nag forcé nañu ba finalement ne élection yi te élection yi di ko jiitu mooy ñoo am fichier électoral ñun ña fa nekk nekk des gens yoo xamante ni ñu honnête lañu. mais koo xam ne da xëcc de ton côté di ko xëcc ba un certain moment dina am cassure opposition mu nekk lu doy waar. léegi yow gannaaw am nga expérience ci wàllu élection wàllu fichier ak euh, yu ni mel euh, tey mm-hmm. lan lañu ñu war a def ba jafe-jafe fichier électoral moom Sénégal weesu ko muy loo xam ni dañ koy taxañ tegee boor euh, jàll ci leneen. waaw léegi léegi li ñu war a def sëgëm léegi fi mu ne ñëpp ngi dugg ci defar ay liste defar ay lii bu nu naree retourner waat dugg ci fichier électoral bi naan lii ak lii de poser problème. bu local yi weesoo kay tax may wax ndax. Ah, gannaaw local yi mi ngi jëm ci législative. jëmi ci présidentielle. voilà local yi nag bu weesoo ba pare. léegi dinañ sentir euh, di fekkee problème yi ci nekk yëpp. waaw léegi nag ki nga xamante moo fi nekk mu jouer le jeu ñu xool nag la ñuy xoolee waat fichier bi. Euh, créer benn organe boo xamante ne nii ñoom ñooy gérer fichier bi ñooy gérer lépp les jeunes yi nga xamante ne nii inscrire ñoo ñu inscrire ñu dugal leen ci yëf yi mu nekk loo xamante ne nii effectivement ñëpp dinañ wóolu bu ñu demee bu fichier bi ñëpp d'accord ci rek automatiquement problème bi du am. kon daal yow ministère de l'intérieur yore wàllum élection yi dalul sa xel bu ma la déggee. dalul sama xel pas du tout. mais pourtant ci jamonoy Ablaye Wade noonu ngeen na kii des élections ah. na des élections Euh, ci la ci la ci la ci la ci la mag ci la Ablaye Wade perte pouvoir bi. général Seck ci la waa général Seck aussi kii ñoom ñëpp ñu ñu on ko waaye système bi ni mu doxale nii Macky Sall du perte élection jamais. Mm. parce que lépp dafa basé wu ci ay fraude ay càmmalangaan yoo xamante ni mënul ne. moo ne dañuy dégg ñu naan fii Sénégal kenn mënatu fee sàcc élection kon yow gëmoo lool. loolu seulement wax gëmuñu loolu mais dama ne la élection yi nga xamante ne nii. parce que présidentielle yi ba mu amee nit ñi dañu dañu kii rek dañu dañu dañu dañu maanu rek daal di ne y' a de problème ñu ñu après intervention yi nga xamante ne sëriñ bii def na kook yooyu ñu daal di bàyyi mu dem mais bii dafa dafa wuute bi dañu dem ba toll ci situation boo xamante ne nii bon déjà dëkk bi ni muy doxee sawapa va pas foo dem nit ñaa ngi jooy lekk gi nit ñi lekkatuñu naanatuñu situation bi difficile na boo ci jógee nag ne man dama bëgg faluwaat par force loolu automatiquement day indi situation bu compliquée. Hmm. kon boog dama ragal ni local yi nañu ko def de telle sorte que lii nga xamante ne nii moom la pouvoir bi tëral opposition bi ak peuple bi bi ñu daje foo xamante ne nii nit ñi waroon nañ fa wate wate wu ñu di jël seen responsabilité pour que yëpp aw yoon bu paree nag. fichier beeg yëpp ñu tas ko indi bulletin unique boo xamante ni euh, kooku kenn mënu ko fërët daal di créer organe yoo xamante ni ñoom ñooy superviser élection ñu jël ministre de l'intérieur teg ko fële te vous comprenez wala ñu teg fi koo xamante ni administration bi sax bi nga xamante mooy gérer yëf yi kooku ñooñu tamit Euh, ñu am koo xamante ne nii dinañ ko wóolu mu nekk consensuel ñu mën a évoluer mais bu dul loolu man am naa ci yaakaar ni am naa yaakaar ni vraiment situation bi dina compliqué ëllëg ci biir. Hmm. ce que tam gis nga ci opposition bi fayda ak taxawaay ba Ablaye Wade amoon peut-être 92 ci kanamu Abdou Diouf ba mu yóbbu ñu ci code consensuel wala code Kéba waaw léegi defe naa yëf yi problème mu nit. Hmm. Euh, problème mu problème mu organisation la. te ci biir organisation boobu. Euh, am naa yaakaar ni opposition bi ni ñu organiser société civile bi organiser ko et tout ça c'est des gens vraiment d'une compétence totale mais bu fekkee da ngay def loolu te ñi nga amal euh, comment ñi nga war a ñoom joué wuñu loolu boobu mm. day nekk loo xamante ne nii euh, yëf yi du mën a dem loolu moo ci nekk mais léegi am ñu yaakaar ni benn nit rek mënul gagner élection gens wu Abdoulaye Wade ñu nekk des gens extraordinaires yoo xamante ne ay boroom kii la ñëpp topp leen. Hmm. façon boobu moo amatul Sénégal. Hmm. si nit ñi léegi boo bëggee dem il faut que nga waxtaan ak kii dajeeg bi et tout ce qui s'ensuit loolu nag Macky Sall daf ko vivre waaye Macky Sall bu ko vivre ba pare ba nga xamante ni amoon na ay avancées moom mu ñëw la jiitu woon yëpp mu jël ko teg ko ci ginnaaw mais day poser problème loolu mooy situation bi. est-ce que tam opposition bi ni ñu tasaaroowee nii du nekk luy arrangé président Macky Sall ci élection yi. voilà loolu loolu calcul boo xamante ni ñoom def nañ ko xam nga euh, pouvoir dafa am doole. Mhm. jël na ay ñoo xamante ne nii ñoom lañu ñu àndal kii nañ leen nu encadré nañ leen jox nañ leen xaalis ba ñu dugg ñoom ñooy perturber situation bi ni muy loolu mooy difficulté bi nga xamante ni pouvoir dafa puissant. kon dafa infiltrer opposition bi. infiltrer na opposition bi d'une manière boo xamante ne nii. Hmm. entente mënul nekk seen diggante. jàmm jàmm mënul nekk seen diggante élection yu leer et démocrate mënul nekk. il a il a vous donc loolu moom li ma lay wax lu leer la parce que yàgg na ci politique bi te on a des relation yoo xam ni moo ñuy permettre ñu gis lu bëree baree bëri mais étant donné que ay mag la ñu Euh, am naa yaakaar ni dañu bàyyi war a bàyyi relève bi. Hmm. jël relais bi. mooy mais il daf ñu war a appartenir ñoom ñu gunge leen ba nga xamante ni dinañ mën a teg seen loxo loo xamante ne nii euh, code bu baax ak des gens honnêtes ñu mën a def ay organisation libre et démocratique. tey boo nekkoon ci langue politique bi ba léegi looy digal opposition bi wala boo nekkoon seen place looy def. su leen su ma leen doon ñoom mooy xeex bañ doon xeex pour fichier électoral bi nekk xeex bu am bu bu ñu bu ñu bu ñu ñu continuer ko maanaam ñu continuer ko. ñi nga xam ne ni war nañu inscrire nu ñu inscrire leen. ainsi de suite bulletin unique bi ñuy wax ñu dugal ko ba pare ñu créé benn organ boo xamante ne qui n'a rien à voir avec le ministre de l'intérieur mu organiser élection yi. loolu nag temps bi ñu toll peut-être ñu ngi dugg ci ay élection mais élection yi confusion lay indi. te ku ci yaakaar mi avec la situation actuelle mën nga gagner Macky Sall da nax sa bopp. Hmm. yiw ko dina jub foo xamante ni da ngay waaru parce que. système bi ni mu doxee kenn mënu cee gagné benn bokk yaakaar c'est pas possible mënul ne mënul ne kon boog ñoom bu ñu insister ba dem ci dinañ dem ba découvrir faille bi et tout cela mais peut-être là actuellement le peuple va prendre ses responsabilités nañ xam ne di awul yoon waaye laa yi ni mu doxee nii man euh, élection yi sax bañ a am jël yëf yi teg ko te côté parce que Macky Sall kenn mënu ko gagné ci système bi ni mu demee nii mënul ne c'est pas possible. est waaw est-ce que opposition bi tam wàccul loxoom ba ñu ko woowee ci dialogue mu bañ ndax lii nga wax nii bu demoon ca dialogue ba xëy na euh, taxaw fa ni ñu fa war a taxawee dana jàll. non dem nañu ca dialogue ba. mais am na ñu demul. am na ñu demul mais am na ay position yoo xam ba ñu ko jëlee euh, nu état bi daf ko rejeté. loolu mooy problème bi ñi demul woon sax man je peux dire que ni ñoo am raison parce que dañu waroon basé wu ci système boo xam si s'il ñu bay ñu élection yi ñaar nit bu ñuy xeex. il faut que mu am ku jóg daal ne leen lii ak lii nii la demee ñu jéem a leen àtte parce que Sénégal quand même ci monde ci àddina bi mu nekk dafa am ay ñoo xamante ñu ngi fii yu déggal nañ leen financement yi ñuy jox et tout cela ñooñu mën nañ dugal seen loxo seen wax ci biir mm. mais accepter dugg ci élection yoo xamante ni maîtriser wo les le fichier électoral maîtriser woo les tenants et les yu bari amul bulletin unique bi dara amul nga bëgg a dugg ci ba pare nga foog ni Macky Sall dina leen bàyyi ñu dem benn lañ dul dem ay xeex rek a ciy mujj. d'accord maître Cheikh Tidiane Touré la ñuy dalal ci démb ak tey mu nekkoon jiital cadre yu parti démocratique sénégalais nekkoon ci itam député ci assemblée nationale maître Touré ñu wax ci parti démocratique sénégalais ak local yi seen taxawaay noo ko gisee woote nañu coalition wàllu waaye warante moo fay tàmbalee feeñ ci bu ñu sukkandikoo ci bokk gis-gis lu ñu wax euh, ñuy wax ne sax ci ay xibaar ni xëy na euh, bot secrète bu wàllu mooy président Wade tey PDS taxawaayam ci géew politique bi noo ko gisee yow mi doonoon jiital cadre yi. man ni ma ko gisee parti démocratique sénégalais. kenn rek moo koy diriger muy Karim Wade. Ah. Ablaye Wade Ablaye Wade mag la xamatul fu muy jëm xàmmeetul droite xàmmeetul gauche doom ji moo topp ci gànnaam di ko manipuler en fonction du Dakar rek nii bu ñu toog Ablaye Wade moo koy moo koy présider ah. un un bu mel ni Pape Diop kan moo ko gën a crédible ici ba ñu tuuti ñu war koo ñu war ko bañ a tabb mu représenter Dakar. donc aujourd'hui euh, PDS ba ñu xamoon te ñun ñii ñëpp ñu nekkoon ci ba ñu demee ba teg suñu tànk benn mag nañu deuxièmement am na yoo xam ne c'est pas normal bon am Ablaye Wade bi ñu doon nekkal doom ja jël na ko nag di làquti ci ginnaaw papa ji pour digérer mais loolu moo indi situation bi yëpp euh, aujourd'hui au PDS waaye euh, am naa yaakaar ni euh, situation bi moom Euh, PDS du def loo xamante ni day gaañ Macky Sall loolu moom lu leer la yëf yaa ngi suñu kanam. Hmm. lépp loo xamante ni nii gis ngeen ko ci biir xam naa ni am na entente d'une manière ou d'une autre kooku moom je demeure convaincu que la situation de Karim Wade ni mu mel nii ak euh, inéligibilité bi mu nekkee et tout ce qui s'ensuit Ablaye Wade li ko intéressé mooy doom ji mën bokk ci élection yi ainsi pour loolu il faut que mu mu jouer le jeu perturber Euh, comment dirais opposition bi pour permettre euh, comment dirais-je euh, Macky Sall signer armistice wala quelque chose pour que Macky Sall pour que mën a bokk ci élection présidentielle wala jël. Hmm. te am na yu bari yoo xamante sax dégg nañ ko ainsi de suite loolu moo ci nekk donc ce que je veux dire mooy aujourd'hui le PDS est complice du pouvoir euh, de Bokk Yaakaar. ah bon kooku je demee ah nan la ah nekkee complice. waaw li ñu nekk complice mooy euh, taxawu Sénégal bi nga xamante créé woon nañ ko boobu nga xamante ni opposition bi dafa waroon nekk benn Ablaye Wade annoncé yëfam ne day dugg si et tout ça xëy suba changer système bi complètement ah xëy suba également ñu war a def ay investiture Pape Diop fekk ko mu jël un gars comme xaw ma kenn xamul kan mooy représenté tey ji au niveau de Dakar et tout ce qui s'ensuit affaiblir opposition bi ba nga xamante ni nii les candidats yi nga xamante ne mënoon ñu am dara mu mu teg leen de côté ah loolu moo am dégg naa mbàkkeeg yooyu yooyu yëpp mu am ko ba Pape Diop ngi nii ni day génn mais ku mel ni Pape Diop nga xamante il a été maire et tout ce qui s'ensuit man bàyyi naa politique depuis longtemps géej ñu gisee depuis longtemps mais ñun ñëpp dama dañu vivre ak ñoom xam effectivement seen capacité xam seen possibilité mais PDS ni muy doxalee nii kooku. que vous allez vous rendre compte que il ne roule pas pour qu'il est pas il est en train d'aller de perturber l'opposition c'est son rôle voilà. Euh, tey ëllëgu parti démocratique sénégalais kon noo ko gisee. ëllëgu parti démocratique sénégalais euh, defe naa ni situation bi ci nekk mooy entente bi nga xamante ni moom lay prôné pour boo xamante ñu bari xamuñu ko ak Macky mën nañu dem ba nga xamante nii. peut-être ñu bokk gouvernement wala ñu favoriser quelqu'un boo xam ku mel ni Karim Wade mu am entente ñu jëm ko dugalaat ci biir ñu xool mook Macky Sall nag la ñuy lijjantee pour ah, mën a. mais waxtaan yooyu Karim euh, Ablaye Wade ak Macky Sall tàmbali woon nañ ko waaye ba tey euh, demul dikkul. waaw xam nga dafa am waxtaan woo xamante ni ci kaw lañ koy wax ak loo xam ci suuf lañ koy wax. kon da jàpp ne PDS ba léegi moo Macky ñoo ngi waxtaan. ñu ngi waxtaan parce que ni mu perturber opposition bi tey jii. ba ñu ñi nga xamante ni mënoon nañu créer une situation au niveau de Dakar ah des candidats am importance ñoo xam ne mënoon nañu créer problème yu bari euh, à Macky Sall automatiquement daf leen teg de côté seen investiture yi kenn xamagul kan lañuy jël loolu bu amee am naa yaakaar ni lépp luy naqari Macky Sall PDS du ko def loolu man loolu mooy sama entente bi nag mu ngi ci biir fekke wuñ ko dégguñu ko mais analyse yi ñu am ak yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg d'une manière ou d'une wane na ni daal ñaar ñooñu am na lu dox seen diggante. Hmm. loolu moo ci nekk waaw am naa li ci kanam dina leer waaye PDS li mu def bokk gis-gis da jàppe jàppee wor euh, jàpp nga ni kon euh, dëgg-dëgg Ablaye Wade dafa wor Pape Diop wala Karim Wade wor Pape Diop ci local yi. xam nga nee naa la Ablaye Wade xamatul lu géej gi réer fi mu ne. Hmm. c'est Karim Wade en politique. moom mooy créer situation bi di parce que Karim Wade li ñi ko ñi àndoon ak papam di xeex les anciens là ne l'intéresse pas c'est une nouvelle équipe di ñoo xamante ni kiiwuñu ñooñu la bëgg favoriser ñi ci des yëpp ça les intéresse pas loolu moo ci ne donc ce qui veut dire que ni tey jii le PDS euh, Ablaye Wade bu fekkoon ni yàlla mayoon na ko encore dooleem et tout cela mu évoluer kon lii nga xamante ne nii moom la ñuy moom la Karim Wade di doxalee du ko nangu et je demeure convaincu qu'aujourd'hui kii la rek mu traité xam nga nu boo demee ba nekk mag hmm. am na yoo xamante ne nii <laughs> euh, di nga ko nangu mais bu fekkee nag da nga am benn doom aussi da nga bëgg mu mu jiite réew mi am na yu bari yoo xam da nga koy nangu mais c'est pas ci dafa nekk en contradiction ak démarche yu Ablaye Wade ñun ñi nga xamante ni fu nekk dugal nañ ko Ablaye Wade tëj nañ ñu kaso fu nekk dugal nañ ñu fa sonal nañu bloqué na suñu suñu affaire yëpp mais euh, ba Macky Sall moom tamit bi mu ko bëggee def loolu dafa fipp daal di ñëw mais li jaaxal àddina Macky Sall ni mu meloon ak léegi ni mu comporté woo man loolu daf ñu jaaxal complètement nan la comporté woo tey ah comporté wu képp koo xamante ne nii am nga yaakaar ni euh, comment dire da nga koy jàppale hmm. wala nga bëgg ko jàppale am na ay gens yoo xam ne ñu ngi nekk autour de lui ku mel ni Mahmoud Saleh ku mel ni son euh, nuutati euh, keneen ki nga xamante ne nii ñu ne ay milliardaire la léegi façon yooyu hmm. ñoo fi nekk autour de lui ku ñëw ñu bëgg la teg de côté loolu moo ci nekk parce que ñun on était pour l'unification de la famille libérale mm. mais bu fekkee mënul am mais mënu boo amee des conseillers yoo xam ne ay trotskiste lañ de premier plan mais ñooñu du ñu nangu loolu parce que c'est pas leur intérêt mm. donc loolu moo ci nekk euh, situation bi daal euh, man je demeure convaincu que que daal euh, doy na waar daal je ne sais même pas quoi dire sur ce hmm. cadre. d'accord léegi lu aju ci parti démocratique sénégalais Karim ni muy doxalee da jàpp ni mooy na mu defoon rek ak waa génération du concret ci bi papaam nekkee ci nguur gi. ñëw séntu ñi fi ne woon di teg ay gaayam noonu lay def moom parce que ñi fi nekk intéressé wuñ ko. Hmm. suñu compagnie gi. Hmm. intéressé wuñ ko d'ailleurs sax ñun. suñu wàll wéy na parce que ay mag lañu léegi te tal nañ ñeneen yu nekk bi biñ bi ñu waree xeex ak Abdou Diouf pour que ñu def fi fichier électoral bu baax ainsi de suite ba xeex ba ay alternance am fi def nañ ko léegi léegi nag Karim Wade est venu papam liggéeyal na ko ba mu sonn mais nag euh, parti dafa nekk loo xamante ne nii ce n'est pas parce que nag fi nekk boo fi jógee sa doom moo lay tomp doonu hmm. ah, lu lu lu lu leer laa lay wax bo donc euh, situation bi daal toll na foo xamante ne nii man je trouve que ni daal en tant que daal dina am ëllëg ak si biir te Macky je pense que ni buy dem daal dina piis daal Karim Wade pour mu ñëw. Hmm. waaw. mais kon noo comprendre situation bi Karim ba léegi mënul teg tànk Sénégal bañ fi waxee waxu ñibbiseem ci lañ ko yëkkatil euh, boo ñëwee alamaan ba da koy fay. boobu tey wax nañu ne day ñëw waaye kenn gisu ko. waaye mais négociation ay stratégie la. Euh, non non c'était au départ vrai mais négociation yi dañu dem ba nga xamante ne nii euh, séparation bi Macky amu ci chance te que bu fekkoon Macky Sall xamoon na ni ëllëg ak si dina mën a def troisième mandat ba dugg ci ba ñëpp kii ko et tout cela kon le problème se pose pas mais aujourd'hui toll na foo xamante ne nii troisième mandat bi ça pose des problèmes il faut que moom ay alliés. Hmm. vous comprenez kon li ko gën a arrangé mooy mu jege ku mel ni Karim Wade. ñu jéem a xool naka lañuy ñuy defee stratégie pour que comme dirais-je même bu fi jóge mom euh, ku mel ni Karim nga xamante ni du ko mën a def dara loolu mooy mooy stratégie bi mais dañu xamul ni àddina bi léegi nit ñëpp am xel euh, réseaux sociaux yaa ngi fii nit ñaa ngi xalaat di xool stratégie et tout am na yoo xam ne kenn dootu ko nangu. loolu moo ci kon da ngaa jàpp ni Macky ñeme naa essayer troisième mandat. Macky euh, tey jii man am naa yaakaar ni. ñemewul def troisième mandat xalaatu ko. Hmm. mën na ko xalaat bëgg ko mais tey jii li mu gis ak yëf yi ni mu deme mais am naa yaakaar ni tey jii xam nga ci lu mu ne. Hmm. bu fi jógee kan la fi mën a teg koo xamante ni du ko top te du am benn problème. Hmm. loolu tey jii. ci loolu waaw waaye di xalaat ni troisième mandat dina ci dugg ak ay yooyu yooyu kooku man ak situation bi ni mu demee ak connaissant Macky Sall je pense que l'histoire de troisième mandat est derrière nous. Hmm. nanoonu la xalaatee waa pour Macky Sall. Ah. li ci kanam hmm. rawuli gët. Euh, maître euh, maître Cheikh Tidiane Touré ñu jàll ci beneen hmm. ponk. assemblée nationale nekkoon nga fa député. assemblée boobu tey ñu joxañ ko baaraamu tuuma ci mbirum passeport diplomatique ndax député yi dañ koy am euh, yooyu mhm. les passeport nag euh, tey mu jur coow euh, ni ñu koy joxee sax ba tey nit ñi ñu ngi ci am xel ñaar ndax aw na ci yoonam déet waaye dañu ciy tudd ci passeport yooyu ak ni yëfi jaxasoowee tey responsabilité boo xam ni régime libéral bu président Ablaye Wade am na ko ci yow nga nekkoon ak moom tey yaakaar nga ni responsabilité bu régime boobu war a gàddu euh, lu lu lu wér la ci mbirum passeport diplomatique yi. waaw man nag euh, dafa am domaine yoo xamante ne nii. sëgëm mhm. maîtriser wu ma les tenants et les aboutissants. waaw ma sore ci ci sama analyse. Mhm. damay def erreur. Mhm. parce que l'histoire des euh, passeports diplomatiques là ak ni mu demee. j'avoue que ni ni mu demee daf ma jaaxal. jaaxal na ma trop trop trop parce que gis nga ñun ñi nga xam nekk nañu ancien député. Macky Sall li mu njëkk def mooy nangu suñu passeport yi ñu amoon parce que dañu ancien député yi mën nañu am mën nañu continuer man am naa plus de vingt cinq ans passeport diplomatique mais sama passeport dañ ko nangu bi eh, nu wutati euh, ñëpp ñi nga xamante ni amoon nañ ci droit ak yooyu les anciens parlementaires et tout mm-hmm. am na ci ñoo xamante ñu faral ñoom peut ñu ngi leen di jox waaye ñun ñii ñëpp daf ñu mettre au carreau. d'ailleurs sax man yàlla def na am nañu tur ci àddina bi ba nga xamante ni foo dem déposer visa ñu jox la ko. Hmm. léegi nag ñu dem ba nga xamante ni mu ay trafic lu nekk ci biir. kii nga xam ne mooy président assemblée nationale wax nañ ko jéem nañ ko fi ne ko am na am na yoo xamante ni jot na ko fi def. Hmm. ah euh, et tout cela. bon léegi nag euh, mu am ñaari député yoo xamante ne nii ñu ngi leen di ciblé. Hmm. mais ñaari député yooyu nekk nañ ñoo xamante ne nii effectivement mën nañu nekk ay victimes. mais essentiel bi defe naa yëf yi gën na sori loolu. Hmm. parce que fa ñuy defaree passeport yi ak ñu koy lijjantee ak foofu ñooñu defe naa ni yëf yi daal chaîne la boo xamante ne nii buñ ko gësee dina gën a dina gën a dina gën a metti mais li ma ci naqari rek mooy tey jii boo amee passeport diplomatique foo mënti dem nekk sénégalais duñ la kii man ba ma daan voyager sama passeport diplomatique boo ñëwee doo rang sax dañu naan ah ay ñu awale la fële mais tey jii bu ñu demee ba finalement mu am ay trafic am ay situation yoo xamante ni euh, euh, awul yoon. Hmm. vraiment dafa nekk gàcce goo xamante ci sénégalais vraiment lu doy waar la kon boog loolu la bëggoon bu fekkee ni état bi jëlul ay responsabilité réglé ko dëkk yi nga xamante ne nii fa la nit ñi dañ koy utiliser ñoom dañ jël seen responsabilité hmm. te loolu yëpp day neenal encore di yàq deru Sénégal te loolu man naqar na ma trop. Hmm. assemblée nationale bi tey euh, taxawaayam noo ko gisee ñu bari ci askan wi jàpp nañu ne moom amatu fi benn njariñ xëy na ci waaw président rek la ñuy wéy est-ce que tey jotul peut-être ñu xoolaat na ñuy falee député yi waaw man je peux dire que ne euh, en tant que ancien député euh, assemblée nationale bi gàcce la ci ñun hmm. parce que ni mu nekkee gàcce mooy doo gis question écrite yeeg liggéey bi député yi war a def dëgg dëgg dëgg kenn xalaat bu ñu demee bañ ne man député euh, comment dirais-je Macky Sall laa ah dafa nekk loo xamante ne nii vraiment lu difficile la man ba ma nekkee foofu lépp lu bokkoon ci infrastructure transport et tout man ci lañ nekkoon mais dañ daan dañ daan dañ daan intervenir di def ay euh, question orale question écrite mu nekk loo xam lu lu lu positif mais fii niveau intellectuel bi ñu yor qu'on le veuille ou non sax mën na benn jàng tubaab mais mën na jàng arabe mais am niveau intellectuel boo xam dina ko permettre muy xool lu li nga xamante ni moo mooy moo baax ci askan bi mu koy ji mais tey jii euh, ñoo xamante ne ni député Macky Sall la ñun seen yoon nekkul ci ils ne comprennent même pas naka lay fonctionner man ma xamul loolu naka la ñu mën a jël ay nit yu mel noonu di leen teg député mu nekk loo xamante ne ni lu lu lu regrettable la pour le Sénégal. kon daal bokk nga ci ñi xalaat ne dañu war xool ñan la ñuy tabb député. waaw waaw euh, déjà ñi ñu war a xool pour que mën nga jàng arabe jàng seen français waaye il faut nga am un certain niveau parce que budget beeg yooyu yëpp mais jàng la laaj il faut nga li am nañu ay assistant mm. mais am na loo xamante ni boo ko xamul ñu laaj la ko ah kenn ñëw expliquer la ko am na niveau boo xam ne boo ko amul mais am na comprendre day am problème bu comprendre mm, doo comprendre te sénégalais yi quand ñu ngi fi nekk ñoo xamante ne nii euh, au point de vue intellectuel et tout ça nga jël médecine bi ay les meilleurs ñoo fi nekk nga jël suñu ingénieurs yi ñu am am am am Pastef ñoo am liggéey bi ñu jël ay ñoo xam ñoo ñuy représenté loolu nag laay wax intellectuels yi bu ñu bàyyi rek euh, nu mu traité ñi nga xamante ne nii tàccoog waay rek lañ fi nekk ñu leen di fal pour ñu représenter ñu loolu buñ ko nangu vous comprenez. Mm. je fais appel en même temps jigéen ñi. ah ñoom ñi nga xamante ne nii euh, jigéen ñi wasoo dégg bu ay jigéen dugg nañ ci ci détourner ceci ou cela ñu am fulla la ñu dañuy jàng te tey jii boo demee ci école yi mais presque majorité bi ñëpp ñoo ëpp góor ñi et tout cela mais ñooñu dañu war a am cër ci dëkk bi ñu ñu jox le responsabilités ñu mën a évoluer loolu moo ci nekk mais nii ñu koy doxalee daal dafa dañ ko war a changer complètement parce que euh, euh, député rôle am bi mu war a jouer mën na ko indi ko ci askan wi dañ ko dañ ko forcé mhm. ñu waxaat ci wàllu politique ñu ñëw euh, cof ci trahison ci wàllu politique yaakaar naa ne sax dimanche bii di ñëw daanu ci waxtaan lu yaatu waaye mhm. yow la nga jot a dund buñ la déggee ci say wax day mel ni Macky Sall daf leen a wor ndax ba ngeen génnee PDS ñëw di ko jàppale yaakaar naa topp ndigalal président Wade yéen a taxawal cercle des amis de Macky Sall waaye na mu mujjee neexu leen euh, ci biir PDS itam Karim ba mu ñëwee di gas ay kàmb di placer ay gaayam ak génération du concret tey nga ni loolu lay wéyal ba tey ñu bari sax mm-hmm. frustration boobu moo leen génnee PDS tey trahison ci politique kon dafa mel ni daal tradition la maanaam aada la ci way politique yi loolu noo koy expliquer askan wi ndax yenn saa yi jafe-jafe la ñuy am pour comprendre yenn attitude yi. waaw léegi d'abord euh, euh, Macky Sall ci ñun la nekkee. Mm. man mii wax ak ñoom maa doon kilifaam ci parti bi di évoluer ba mu xamante ne nii gagné élection yi waa Wade daf ñu wax ni ñu jàppale ko ah ñu créé euh, organisation des def cercle des amis de Macky Sall mm. mais bañ koy seeti ña toogoon foofu laa xalaat ni yëf yi du du du sori ku mel ni Mahmoud Saleh sax xuloo nañ fa parce que dañu dama leen ni euh, actuellement président ñun dañu ñëw jàppale la parce que euh, c'est vrai trop si jàppale nañ de et tout mu tëb sama kaw. hum bàyyil ñoom et tout ça ñu ba président moo ñëw doon àtte foofu la jógee bloqué euh, organisation boobu les amis de Macky Sall noonu la ko éclaté teg ko ci suuf ba yëf yi jeex tàkk kenn dematul kenn déggatul waaw ku mel noonu wër day nekk loo xamante ne nii mënul évoluer donc trahison bi en fin de compte mooy euh, ñi ñëwoon ñëpp mais dañuy jàppale Macky Sall dans ce contexte la koo ci gis mu ne la ah man daal Macky Sall gisatuñu ko xaw ma tuñ ko et tout cela mais Macky Sall dafa foog ne ku ko jege rek day ñëw wut ci moom xaalis wala muy wut si ci moom fii ma koy xamal ne ko ñun bi ñuy am amul bi ñu amee bi ñu amee nekk ay kii xam ne bu baax li ma koy wax boobu amul dara ti comprends hmm. donc ñun faale wuñu xaalisam te xaalis bu mu yor Sénégal moo ko moom ba tax na toll nañ ci loo xamante ne nii mooy amul benn benn benn buñ koy jàppale du question ay intérêt wala ay place ak yooyu parce que koo xamante nekk na fi député ñu bari ñoo xamante ay responsabilités yu mag la ñu yor am na yoo xamante ne nii euh, euh, àddina jaralu ko ba mu ci dugg nit ñi nag du ñu wute am na ñoo xamante ne nii ñoom it seen intéret dañ ko bëgg ainsi de suite mu jaral leen lu nekk ñu def ko mais ñëpp meluñu noonu. Hmm. mais boo gisee nag Sénégal ci boppam am ay difficulté mooy ñi nga xamante ne nii war nañu mën a indil dëkk bi dara ñooñu soit que ñu imposer leen ñu def politique te mënuñu ko. wala ñu frustré ñu mer dem toog seen kër wala ñu nekkaat ci leneen hmm. di travailler sur le plan international et tout cela sànq laa doon lire journal bi sax ñu ne l'ancien directeur de la douane douane am na benn benn dëkk ko jël beneen proposé nañ ko mais xam nga loolu lu rëy la hmm. c'est c'est des gens yoo xamante d'une compétence ñun ñoo nekk ndoowoon directeur vous comprenez hmm. man ba ma nekkee Boubacar Amar nekk bi muy nekk douane boobu maa nga woon ko fekk hmm. comprenez mais xamoon naa ne situation nii lay demee moo tax ma dem inscrire à l'ordre des experts ba tey jii je suis expert cargaison maritime aérienne multimodal ci laay nekk di liggéey lu ma am évoluer et ak tout ce qui s'ensuit hmm. léegi nag li may jox conseil sénégalais yi def politique balaa ñuy dugg ci politique nañu am métier jàng am seeni diplôme ba pare mën a dugg ci politique mais bu fekkee da nga dugg jàngoo amoo niveau amoo dara nga nekk ci politique bés bu politique ba jeexee oto lu nekk lan lay def loo doo mën a dem doo mën a avancer. Hmm, ñu bari tey politique bi mooy seen métier. mooy seen métier léegi nag loo ba loo mu jaral leen lu nekk nag. Mm, kon loolu indi yenn saa yi warante geeg. wa loolu la tànk yi warante bi ak bu ñu toogee fii ña ngay wax loo xam ne du dëgg di wax loo xamante ne nii inimaginable mais ku ñu mel ni ñun kenn mësuñu dégg ñuy waxal kenn nit wala di kii wala yooyu parce que d'abord nit nit dafa war a doylu. Mm. ah nit dafa war a doylu yow boo amee fukki dërëm ñu xam ne fukki dërëm bi da ko ñàkk et tout ça. am nga oto booy dawal am nga foo dugal say njaboot am nga loo lekk am nga loo naan mais looy rey sa bopp di def loo xamante ni euh, sénégal yi nga xamante ni ñu ngi lay xool nekk ak yow ah mu amuñu sax nekk ci situation bu difficile yow nga kontaan ne am nga oto bu rafet et tout cela man dama comprendrewul situation bi quoi loolu nag mooy indi en général bëgg-bëgg. ak euh, fukkale mooy indi nit ñi di def loo xamante ni ëllëg ci biir ku ànd ak yow ma ngay jéem wut loola neexal ak ainsi de suite loolu na àddina jaru ko loolu man vraiment man suñu borom bi laa gëm. Mm. nit ki lu mu am yàlla moo ko koy jox ak liggéeyam ak li nga xamante ne nii nu mu tëdd def na ko ci boppam muy pour la ak loolu daal man lool laa gëm. Mm-hmm. mais nit pour ci loo xamante ne nii taxawul loolu yàlla nañ ci yàlla musal. Mhm. gis nañu tamit euh, jamono yi engagement wu ay jeunes cadres ndaw yoo xam ni jàng nañu ku ne am métier ñuy ñëw di wut si langue politique bi mais dafa mel ni homme politique yi dañu leen di xaw di bundu xataal ba ci élection yi jàpp nañu ne caution bi ñu yóbbu ba ci trente millions pour municipal yi ak départemental yi six indépendant yi bokk na ci. Euh, ñooña tey ban taxawaay lañ war a am ak bu ñu fësee ci langue gi ban changement la mun a indi ci réew mi doxee. ñu ñu ñu jàkkaarloog ñooñu rek xam fi ñu xam nañ dañu jàng ba am seen i diplôme am seen xam-xam. Hmm. te loolu na Sénégal d'accord léegi bu ñu duggee fenn foo xamante fekk nañ fa ñoo xamante politique rek la ñuy def ñu reculer tey bu ñu reculer ëllëg nañ jàkkaarloog ñoom li mu laaj ñu nangu ko waaye bu fekkee da nga ñëw ñooñu ko xatal la nga dem ceci cela et tout cela boo jàngee ba nekk cadre déjà am nga fule sa bopp. Hmm. ah léegi nag li ci des mooy détermination. fudd la ak fayda dëkk bi kenn moomu ko nga ñëw euh, def li nga war a def lii nga xamante mooy dëgg bu ngeen demee ba nga xamante ni nag problème technique posé na foofu la ñuy defee la différence. Mm. li ma leen di wax rek mooy ñu bañ a ñu continuer la combat parce que ci ñoom la Sénégal compté ah dëkk boo xamante ne nii ñu ñi fi nekkoon ay Cheikh Amadou Bamba Alaaji Malick di xeex ak tubaab di toll foofu kon boog ñoom borom di yaase yooyu borom xam-xam yooyu dañu war a continuer te bañ a déglu ñi nga xamante dañ leen di utiliser maîtriser di leen utiliser pour des choses yoo xam ne amul sax dañuy découragé naan dañuy génn dëkk bi ak yooyu déedéet Sénégal yéen a ko moom. mais dégg nañ fi problème système ak Ousmane Sonko bi muy doog ñëw dafa dàqoon lépp luy alliance ak ñi fi nekkoon waaye tey dafa mel ni si système boobu boo koy jéem a xeex moom da ngay mujjee lab ca biir est-ce que changement bi dina yomb Maître Touré. xam nga pour euh, ku mel Sonko. Hmm. Euh, bi nga xamante ne nii dañ koy dàq dañ ko dañ ko jël xëy di ko di ko rajee mm. dafa ñëw di déposer dossier am fi ñuy wax ordre des experts mm. pour wane ni moom am na métier ainsi de man ñi ci jàpp ci commission ba ko ba ko mu nekk expert ci la bokkoon vous comprenez mm. mais am na lu bari loo xamante ne nii bu ko bu ko na bu ko nangu woon kon tey jii euh, fii mu toll du ko du fa mën a toll ah lu mel la eh, c'est-à-dire bu nangu woon par exemple euh, ñu koy ger wala ñu muy nangu ñu koy ñu koy ñu koy kii daal di ko utiliser hmm. ah c'est comme inspecteur des impôts ñu koy jox xaalis muy dugal ak tooy tey jii fii mu toll dafa toll hmm. moo tax man je je l'apprécie beaucoup mu ñu continuer combat bi ñuy def ñooñu man am naa yaakaar ni changement bi war a am Sénégal ci ñooñu lay def. mais tey bu demee def alliance ak parti yoo xam ne fi lañ nekkoon nekk ci système bi est-ce que bu bu ko yàlla dogalee mu falu du yëf yi nam daan doxee rek lay continuer di doxee. déedéet parce que moom xool na li am man je pense que ne ci ci ay ci ay programme lay doxee. Hmm. bu ñëwee war a dubboog ñi wala wala wala ni nii laay doxalee tout day joxe programme hmm. joxe kii am ñu discuter ci ba xam naka la ñuy loolu moo ci nekk mais système bi xam nga dafa nekk loo xamante ne nii il faut que nga maîtriser ko parce que lu ko la bay uno amuñu amuñu alal gi ñu war a yor pour développer suñu dëkk ainsi de suite donc système bi ñoom lu ñu gën a mën di bari rek di am lu bari di dina exploiter Sénégal yi loolu moo ci nekk léegi même bu fekkee ànd naak ñoo xamante ni nekk na ci système bi pour mën a changer politique beeg yooyu mm. man am naa yaakaar ni détermination bi mu am ak fi mu jaar bu demee automatiquement dina mën a changé lu bari te loolu mooy sauver Sénégal ak Afrique ëllëg hmm. parce que tubaab bi da ñëw ñu proposer la dara loo xamante ne nii seen intérêt dëkk la je vous donne un exemple ku mel ni par exemple Eiffage euh, société tubaab yooyu nga xamante ni ñu ngi fi hmm. di def lu nekk ah di def n'importe quoi mais ku mel noonu bu ñëwee ah ñi nga xam ne leen nañu ñoom Afrique ci lañ bokk malgré seen réalisation yi ñuy def mm. parce que marché yi ñuy am et tout ça c' est important mm. donc ñu ñu des jeunes comme ça la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu bëgg des jeunes yoo xam ne déterminés des jeunes yoo xam ne dañu jàng li ñuy def mën nañ ko ba pare nag nekk de vrai vrai patriote loolu moo tax man euh, j'apprécie beaucoup la démarche de Sonko man vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla musal ko ci cat yàlla di ko ñaanal également li nga xam ne ñu ngi koy xëcc et mu ngi koy xëcc pour réew mi yàlla may ko man je suis un ancien du PDS directeur général con euh, lu nekk euh, au point de vue jàng et jàng naa ba mu sori. Hmm. mais gis naa ni lii nga xamante ne nii sax ban moom ma yóbbu woon ci Abdoulaye Wade ba ma nekkee ministère de l' équipement. Hmm. dañ daan liggéey ah ñu ne la defar tali. ñu jël ko jox ko ñoo xamante ne nii taliba ñuy def un an après taliba yàqu loolu moo tax ma ne ab Ablaye Wade kat man damay ñëw ci yow parce que lii laa gis et tout mu ne ko ndax nangu combat ma ne ko dama ko nangu. boobu socialiste yi ñoo daan def loola. socialiste yi ñoo ko doon def. Hmm. dañuy ñëw gagné benn marché boo xamante nii dañ koy jox benn tubaab mu koy def après. tubaab yi ne leen kat fii kat quinze centimètres d'enrobédance moo fi nekk waaye boo bëggee ñu def ko cinq centimètres après li ci des ñu may leen ko jox la ko ngeen mën ci dundu ëllëg a ci biir hmm. ñu bari nangu ko ba ma ko gisee nag laa ne Abdoulaye Wade lii jëmul dëkk moo tax tali yu bari defaral nañ leen un an duñ ko diire donc man sama combat moo doon loolu kon boog su ma gisee des jeunes yoo xamante ne nii Euh, am na keneen koo xamante ni maa ngi koy gis aussi ci ci ci jeunesse yi un certain Cheikh Tidiane Sarr xaw ma dëkk Cheikh Tidiane Sarr la xaw ma. Euh, ah Cheikh Tidiane Guèye xaw ma. na benn un boo xamante ne nii. mais gis naa ko muy développer ay thèmes yoo xamante ne nii di wax yoo xamante ne nii vraiment bi ma ko déggee euh, nee naa kii su ma amoon contact am dinaa ko yónnee sama félicitation di ko encourager ça c'est des jeunes yoo xam il faut. il faut les aider à évoluer te wax leen nañ am fit ah ñun ñii ñëpp def nañ ñu kaso Abdou Diouf tëj nañu fu ne dugal nañu fu nekk te ñu ngi nii ba ñu demee retraite expert la maa ngi continuer yàlla mooy yor ñëpp. Hmm. kon boog voilà la situation telle qui se présente léegi nag ñoom Macky Sall ñoom dañ ci nekk pour un système. léegi constaté nañu système boobu kii na am na yu bari yoo xam ne def na ko comme par exemple euh, projet route beeg TER beeg ñoom sama euh, yooyu am na yu bari yoo xam ne c'est des erreurs yoo xamante ni mënoon ni ci waxtaan ñu xool ko kon boog sëgam loolu am na ba pare j'encourage tous ces jeunes là ñu jéem a continuer le combat xam ne ñoom ñoo yor Sénégal ëllëg parce que tubaab yi kat fexe ñoom it ba développé seen dëkk seen maam yi bàyyi nañ leen dara mm. ñu tamit il faut que suñu maam ñoom ñu liggéey ñu jéem a xool nag la ñuy indilee seen sët yeeg yooyu ñu évoluer moo tax si les encourage mm. pour que ñu continuer la combat ñoom mu dara amuñu ko fi moomuñu fi dara te bu comprendre lépp lu ñu am rek dañ ko jëlee ci poche sénégalais yi et tout ce yi loolu moo tax malaad ne man lii wërte ba sëgam ay grand lañu ay mag lañu ay maam lañu léegi nañu fexe ba identifier xale yooyu di leen jox suñu di leen encourager ne leen ñoom rek ñoo mën a sauver Sénégal. jërëjëf y a pas de problème. Mm. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte sekk ak yow waxtaan wi euh, laal ponk yu bari fichier bi ba ci élection locale yi ak warante gi ci wàllu politique euh, ñu amoon mbégte lool dalal la ci émission démb ak tey jërëjëf. maa ngi lay gërëm bu baax a baax yéen tamit euh, seen micro bi da ngeen koy jox ñoo xamante ne nii. effectivement am ngeen euh, yaakaar ci ñoom ñu jox leen seen xalaat. Mm-hmm. c'est pas la première fois di leen kërëm di leen sant. di leen ñaanal seen rajo bi yàlla na ngeen dem ba am seen ay télévision parce que ñu am euh, taxawu ngeen.